mbokku asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Equivox TV ñu amati mbégte ak bànneex rek jàkkaarloo ak yéen tey nag dañoo ñëw fii nga xam ne moo di yëmbal ngir rek ñëw waxtaan ak famille Baye Cheikh Baye Cheikh nag bu ngeen ko déggee seen xel dina dem ci euh, ndaw bi nga xam ne jot na ñàkk bakkanam ci manifestation yi nga xam ne. am na fi ci bés yi ñu génn muy mécanicien boobu nga xam ne dañ koo fekk ci buntu euh, garage am daal di ko boom rek ba mu daal di ci ñàkk bakkanam ñu ñëw nag fekk si ki nga xam ne moo di waajuram bu góor ngir rek mu waxtaan ak ñun ginnaaw di waajuram bu góor euh, sëñ bi nuyu naa la. jaara naa la. ginnaaw biñ la masawoo di la jaale te di séddoo ak yow tiis bi nga xam ne ñoo ko bokk euh, ki nga xam ne moo di Baye nekk sa doom ban seede nga mën a def ci moom. Baye Cheikh waxti yomb na ndax maa ko jur maa ko dugal alxuraan maako ko dugal école maa ko dugal mécanicien Baye Cheikh ndaw la waaye dafa teel sotti dama ko na góor day am caay-caay amu leen caay-caay ndax man xam naa ne booy moom leen teel a sotti karo ba muy dee daa baase bat na moteur la teg karo xam nga distance la am karo la teg moteur oto karo la faatu. Baye Cheikh moo yoroon sama ndox Baye Cheikh sama nit la waaye nag sant naa ko yàlla ndax yàlla moo woon Baye Cheikh moo jël Baye Cheikh Baye Cheikh moom kontaan naa karoo ban ma gàddalee Baye Cheikh yóbbu ma ko caaree gaar ma woo mbooloo mboolu mu ànd ak man ñu dem suuli baay Cheikh ci jàmm ñu ñëw ci jàmm yëma dara yëkkatiwul booba laa pare kontaan ba mënutuma wax ci Baye Cheikh dalaru ñaaw sama xol dafa sedd ndax man mi bàyyi su ma sañoon li sama doom ji am tey ndax am na bàjjenam xam ne ma nga toog ci biir néegam Louga la nekk waaye tànkee day metti waaye ci biir néegam ba te jàkka ja ba armeele te la toog seetaan bàyyi seex kon sama doom am na la xam man mi baayam est-ce que dinaa ko am loolu sama problème samay doom daan yàllaa leen yaral seen bopp lii du fi gan sama aawañ nii laa ko dafa am doom gaañu waaye bàyyi woon na maa doom yu bari waxal boobu dinaa fa jaar laaj la xam nga autopsie bi génn na mais autopsie bi mu génnee dafa xam le ne du feteel moo ko rey xëy na loo xam ne dañ ko dóor ci bopp la non dan la ka wax ci man dossier bi médecin bi dama ko wax lu loo wax da ko waxaat barke sëriñ naa Mohamed daan teg jàppale nan ma ndax ba may toog dama toog ñu toog ma woo sama benn copain ku may turandoo booy bële mu ñëw ma ne ko xoolal barke Babacar si autopsie bala ka rey. bi génne ci kayit maa ngi samay kayit jox na ma kayit li ma war a jox dem naa police li war a jox jox nañ leen li man war a jox jox nan ma ko xamaa sama doom bala ka rey te dana leer xama dina leer dana leer Sénégal moo demee noonu lu xam lan bëgg. Baye Cheikh bala fetaal leen ko dóor fii yuur ko sotteeku. xeer du tuur su xeer yuur man maa ko jur waaye si nga xam nga senegal da xam ne dañuy taalum réew te man taal Sénégal taxu maa jóg man ndaw Sénégal laa sone Sénégal laa Sénégal dañ maa dañ noo soxla kon lay defar réew mi laay defar ñiy wax xeer laa di néeg ñeeg ñi bàyyi seex fetal lan ko dóor bal lan ko dóor ti bopp yuur gu sotteeku procureur euh, astafurla hôpital autopsie bi ma jox bal fetal moo rey sax du balle sax ay royaan yey néegi fetal moo ko rey jël naa sama kër jàng na école na yéen waaye na ban suulee baay seex yàlla moo ra xam nga yàlla moo jox baasa moo dindi lu bari sama xol su ma waree dox xam naa nu may def dinaa gis borom réew mi ci kattanu yàlla sama bal bal bii rey sama doom ji kaka rey borom réew dina wax ak moom te ma soobee yàlla ak yonante bi xeexuma xulóowuma Sénégal senegal daam yoon te dëkk yoon la man noonoo juum na waaye Sénégal daa am yoom de borom réew bu waxatim daa juum de bëgg na senegal de Sénégal képp ku fi président président ku fi na bëgg réew mi bëgg nga Sénégal waaye dafa am buy de bu kii di defar kii di yàq du dem bu ñii di defar nii di yàq duñ dem man ñëpp laa bëgg ndax ñun ñëpp ay Sénégal la képp ku woote lu baax danaa la wuy waaye man sama woote ndax sama xeex daaw du wut ay xeer duut ay fetal xam sama xeelan la sama carte électeur sama carte électeur maa ko moom bu élection jotee si nga xeex amuñu carte réew mi xam nga lu war a def ku ñu jàppati laaj la carte électeur léegi ñu mu jeex am nañ amuñu carte d'identité bu la fekkee nga ne ngay def dara bu buñ leen jàpp ne la jox leen carte d'identité yi ku amul carte d'identité ñoo xam ne yow mii waroo taxaw di wax ku ndax bokkoo ci réew mi am réew na boo fa amul kayit bokkoo ca man nag Sénégal jaamu laa fi woote te jaamu moo ñor bu doon bàyyi seex mi jaamu laa doon dox. ndax réew mi dañ maa jox te muy police gendarmerie xam nga waa ji de police gendarmerie ñëpp dañ maa respecté karo ba ma sama doom jeex mu nekk ci dina ne pompier ñoo ñëw indil ma ko ma wax leen la bu ma neex du ma ci jàll ah. su ma neexoon ma baale man su ma tëju ma waaye ba ma leen ba ñëwee wax leen danoo ba maa ngi sant waa pompier. donc yow nga pour porter plainte. non dama naa la pare naa waa damaa nekk ci dëj. yow laa ci may sama doom maa leen woo moo tax dama doon dindi tuuma sama doom marsul sama doom dañuy ñi ci des ne néew dépasse la ñuy wëri su garage boobu tasagul am nañu ku fa war si de na bu lëndee bu kattani yàlla am ku fa war a remplacer bàyyi seex yàlla mu jox na ma jël na bàyyi seex waaye joxaan na ma kenn ku du bàyyi seex damaa bëgg nag ku koy jàppale jàppale ñooñu Tafa ma nga ne Tafa ku ko jàppale mu dem yoonam. Tafa rakam la Tafa moo mag sax bàyyi seex. Mbacke moom ak Baye Cheikh kon Baye Cheikh am na ay mag. ci noonu papa est-ce que ba mbir mi amee ba léegi est-ce que am na kenn koo xam ne jóge na ci nguur gi wala ay personne de bonne volonté boo xam ne taxaw na fii ngir pare pour jàppale leen. non sax mu mastaw leen. waaw mastanoo ndax Baara Gueye nga noonu dem kon ci nguur gi la bokk Baara Gueye mooy moo yor maire yi Thierno Ndiaye ah maire yi yëmal jàppale lan ma député Sama Ndiaye jàppale lan ma ñi des ñëw nañ jaala lan ma waaw bari nañ ci ëpp. <laughs> li leen tax a jóg mooy politique waaye nguur gi waa kër Macky Sall waaye comme yi nan la ñuy ñëwee nan la ñuy ñëwee bëgg na noo ñëw waaye benn saytaan bu taxawee bëgg pour intérêt boppam muy mbuboo sama doom nan la ñuy ñëwee su ku bëgg ñëw na ñëw maa la garanti ba nga dugg fi génn fi tey bisimilah ngay dugg alhamdulilah ngay ñibbi ba Seydina Mohamed laa dun rayante na ma defoon ba suuli boobi bal tàkkul danaa ko def ba génne la yëmbat dara du tàkk. maamu yëmbal moo amul benn problème jaamu lan fii ñaan seen lu yëmbal laa bàyyi yëmbal la juddoo fii la fii la fii la dee fii leen ko suul may man ñetti mbaar laa juddoo yaroo yëmbal ñetti mbaar laa juddoo yaroo caaray màgga yëmbal su ma dee nan ma suul ta bàyyi seex jàmm laay ñaan ci senegal yàlla na fi yàlla def jàmm problème fi am saytaan la woon man xaw ma ndaw si sama yoon nekku ci moom kee joom ñëpp ndax man vieillu ma duma dem fu ma koy waxee te du ma ngaaka dem wax ji man bala nga ma ban du ma dul dem sa wër ban may ji ñu vial tam sama jabar su ma bëggee xam naa fi ñu koy defee waaye njuumte day am nit day juum nit dong la ñuy doon ñun ñëpp danoo juumoon kon suñu borom comme sëñ su baax si wax nañ ba indiwaat Sénégal tekka ci yoon yi laaxan ci yoon wu rafet kon may ñin lu di sëñ si def laa bëgg ndax loolu nag laa doon ñaan. Sénégal ñëwaat ci jaamu Sénégal ñëwaat na ci jaamu keneen ku ko taal yaa ko taala sa bopp papay bàyyi seex taalu Sénégal bàyyi papay bàyyi seex xeexul papay bàyyi seex jaamu lay woote képp ku def say mbiri bopp yaa jël sa responsabilité bopp pour def ko ku ma mbuubu bàyyi tisatu bàyyi seex ku ko sol bii la policier ma naa leen ko képp ku sol xam nga yow tooñ nga yoon ba pare waaye des nga dana la la téye man danaa la jox plainte te boobaa ñaari tooñ da te ay ndaw lanu nan dem liggéeyi. fi feebar bi daa am ci réew mi nan moytu coow aw ay du yam ci bopp boroom xale yi ndaw lanu ñoom ñi koy def ñii nan dem liggéey bàyyi seex daa bon dor dóor ko bale fetal te daa wóoroon dem leen woori jaamu yàlla dem liggéey bu ngoon làqartu ni muy defar samay sa doom yi di leen defarloo di leen nax da leen ñuy nax xawuma ko xamaanuma ko te nit leen ko sant kooku joxuma cent franc fii Baara Gueye ma fi jàppale sama karo ba ma dee sama doom na dog Baara Gueye ma njëkk a woo ku deeg sa baam man du ma man jikkoy baay baay laa waxoon laay wax du sant ku ma defarul dara dama doon dundu te yoruma dërëm su ma amee suba kaani su ma amee naan suma ma amee soomi naan su ma amul jàpp ci yàlla àdduna noonu lay doxee yàlla sax gërëmuñu ko ñun ñëpp asma ak doomu aadama ñëpp du la gërëm maa ngi sant senegal di di wax borom réew mi ah yàlla na ko yàlla defal jàmm ah ñoom ñëpp ay ñoom sonk ñëpp yàlla na lépp ay affaire saytaan la loolu rek. yàlla na ko yàlla jeexal ci jaamu ñu xoolaat ñu Sénégal ñu jëlaat place am joxaat ko Sonko la moom lu fekkee ne war naa mën a war naa mën a gérer ñu xool Sénégal dan koy li liggéey moo ko ñun ñëpp liggéey ñu tax a jóg te maytu seytaane yi muy Sonko muy Macky Sall ay doomi ndey lanu ñoo bokk senegal kon nañ xool ni Sénégal rafete ko Sénégal leen ñor na Sonko toog Macky Sall na woo Sonko liggéey ñoom ñëpp ay liggéeykat lan man du ma politicien waaye kuy liggéey danañ ko xam am na xam ne moom dara ñoru leen lu seen soxlay bop man am na réew mo si amoo benn paa am na ka xam ne mu doon borom réew mi du ma wax yàlla na yàlla defal jàmm ndax loolu du sama wàll yàlla na yàlla def senegal jàmm man daan loolu rek laay ñaan waaye papa yi bàyyi seex marsul santaane wu ko sama foto doom dañ ka sàcc ki fi ñëw man dëdd laa ne ko dëj man nga fi nekk da ngay mars man sama doom damaa dox ba police anu ma ndax bu metti woon sama beneen doom dee fa ma gën a perte wala ma dee fa ma gën a perte xëyexu ma xuloowu ma damay xëy bi si nga bu altine bu soobee yàlla su ma xëyee comme man nag dama noon takkaare ndax fay ku ma weer ma takkaat samay dàll defaat rek sama xëy lu waay wàllu jaam yàlla su ma xamee amee sama ñaar téeméer booleeg la booya booy des am jox leen ñu lekk maa ngi sant yàlla. ku yàlla bind ku ne ba ngaa naan ci géej gi Kawsara te moom lañ ko euh, jaalee waaw moo tax yàlla wàcce naa tey naakal kawsar boo koy dégg waaw loolu moo tax mbir mu du ñu métti comme yow ci ki nga rey moom la mbir mi di commencé yow loolu du la metti dañuy delloo si lépp rek ci loxo yàlla parce que ki la ki jël sa ndey jël sa baay bu fekkoon nga suul benn doom avant baay seex bu baay seex ñëwee du la métti waaw ñu santaal yàlla bu baax ci loolu. ma amee quatre ans la ma ko yaayam joxoon. ma yore ko yor ay magam ñu bokk baay jooyu ma dara aw ma leen lu ma naqar ci magam yi ba ci moom mi gën a ndaw dañ maa yor yor samay tuut tànk bu ko neexoon sax ma dépasse wala ñu sax seen baay dépasse man waaye defuñu ko ku bala ngaa xëy di nga noo tànt naa def ma la manqué sama tur sax xamuñu ko waa koñ bi ñu xam ne kii laa jure kii laa jurul benn ki ma am mi am quatre xam nga kooku mënu maa yor waaye su wàccee mu néew lu bëri sama loxo bi la koy teg yaay mi tamit xool yëru lijjantiwut na mu sa doom la ay xam laa la laaj kon nag bu ma sañoon bàyyi seex mi damay woo yaayam di ko sédd wàllu njaag loolu laa amoon yéenim fii laa toog papaam woo ba mi xëy samay daal la sol ma ko ñàkk nga jom dangaa war a jënd daal mu ne ma maîtresa ba ngoon papaam wàcc na tey di am xaalis ma ne ko tax lan ma tey sa doom tey la adme bagam métier mi ngi wàcc moteur ma ne ko su ñëwee joxo muy franc ma jënd ay daal gisaatuma ko xale yi ci mbeddi lañ ma fekk song ma na ma dóorañ bal bay seex lii laa am ci bay seex xanaa naqari ma loolu nag metti ma trop def ma soog ndax damaa bett ndax ba mu fi jóge dañoo tàggoo si jàmm mu woor man ko ba ngoon ak jàmm doon am yéene ak yaakaar mu wàcc dog kooram googu lim si ñaan yàlla nangul ko ko loolu laa amoon ci yéenam waaye nag yaa ma pexe yàlla ak ndogalam xëy nii la ko yàlla bëggee dénk nañ suñu loxo suñu borom bàyyi nañ lépp ci loxom yàlla moom mi am jàmm te moom jàmm tey jàmmal ñëpp yàlla ñu jàmmal. yaakaar ko ba dañ ñu fóosoom ba mu def bagam nit yow jël ba carte sama doom sama yaakaar loolu doo ko ba tirakat ba see bu ko oto jur doom da altine ba ñu jënd moteur ba alxamet damaa ñëw garage damaa ñëw garage fekk ñu teg moteur yi ma ne leen dugal moteur bi dugal ma kame ñu ne moteur bi de sa ñànkar gi bu nga ci tegee mu toj ma xëy mu paase bak at me dee alhamdulilah yàlla na nu yàlla bàyyi seex daan bugguma ku ci waxati ku ma bëgg a ku bàyyi seex nag man maa koy jooy bàyyi seex képp ku ko mbubu wooti yëmbal gii barka Babacar si xeexuma ak police xeexuma ak gendarme xeexuma man ak yow ñooy xeex civil ak la yàlla na yàlla def jàmm